ci la daal di ñibbi ci ay këru mbokkam moom Ameth Ndoye Abdou ma laaj la sa doom ndey daal di nañ koy teggi loxo gannaaw bañ ko daanee fukki fan ak juróom yoo xamante ne eh, teg nañ ko ay daan toppee ko lu ñuy dippee défaut de permis ban jàngat nga ciy def. Ah, waaw mais c'est c'est normal justice moom li mu lay toppee bu amee yàqin na yaa ko def wala boog mu jo mu jàpp ne yaa ko def. Hmm. faw mu jël ay sanction teg ko sa kaw ça ne veut pas dire yaa ko def nag mën na jàpp ne mën na gis ne éléments yi ma jox mu sukkandiku si daal di koy daan léegi kon mën nañu jàpp ne yow bu fekkente ne même gis-gis bi nga am bu dee am mendooy boobu la am mën nañu xaar mu mu mu porté pour ragg li nga xam te ne ah moom nag. Hmm. individuel. c'est ah yow dama jot ay xibaar ñu ne ma. Hmm. Ameth Ndoye li muy nekk sa xarit yëpp bi muy nekk ci kaso bi seeti woo ko. waaw amutoon visite. kenn rek moo ko visiter ci ñun ñun ñi ànd ak moom yëpp kenn ko ci visiter. parce que kooku ñun dañoo dem wut visite amuñu moom mu fajaru comme jege na tribunal hmm. mu dem lënd ba ñu jox ko visite jour yi ñu koy bëgg a yépp day tombeek jour audience am lay doon suñu xëyee renvoyé ko automatiquement boo demee ci ñaan audience dañ ñaan naaj bi tàng na wala kuñ àtteegul fële ngay dem ñaane audience xaw ma ci côté kaaf bi noonu ah, waaw biir dem nañ fa ñaari yoon rang-rang mayu ñu ñu ñibbi ngeen est-ce que loolu oyoful est-ce que def nga effort yu war pour mën a am na a dugal voilà <laughs> te doo si rek mu leer. loolu boo ci jéem parce que gaa yaa ngi ko tegal la ko ci kaw taabu yow yow la yow man nan laa def ba yëg ko. man topp ma la bokkuma yow dëkkuwaay. dama jot xibaar ma ne naa la dimbale pour nga am ci. looy leeral bu ci sori bu ci sori doo ci wax. alors Serigne Niang mën nañu jàpp ne affaire Ameth Ndoye le droit a été dit comme ni ñu koy waxee. waaw il il a été reconnu coupable. maanaam lu ñu ko doon toppee moo ko def. moo ko def. Hmm. parce que mbir mi ñëpp xam nañ fu mu démarré. exactement. Hmm? Hmm. Euh, am ay agent yu la kar di laaj la ay kay kayit nga génne ay kayit xamal leen ni am nga permis waaye sa permis dafa am agent boo xamante ni. moom moo la njëkk a attesté moom moo jël sa permis alors que yow moment bi ngay wax loolu xam nga ni yow amuloo permis xam nga ñàkk permis de conduire lañ koy toppee. te li gën a graaw dans tout ça mooy amet manipulation bi nga xam da ko def si dossier bi parce que yow dem nga commissariat ñu ne la demal nga indi sa permis nga ni naa politiser mbir mi dem ci benn mouvement politique une coalition anti Sonko. ah non moom ñoom la ñu teg j'en viendrai ok j'en viendrai nga dem ci benn coalition anti Sonko. Hmm. nga taxaw nii wax dëgg yàlla Euh, mbir mi mbirum politique la ba influencé ci ay nit trompé ci ay nit lu mel ni Cheikh Yérim Seck taxaw ni dafay porter plainte porte plainte police su Sénégal police nationale parce que Ameth Ndoye mais am nañu jàpp ne foofu Yérim moo gën a dugal Ameth Ndoye que Ameth Ndoye non Yérim déedéet Ameth Ndoye moo dugal Yérim Yérim Ameth Ndoye moo dugal Yérim parce que Ameth Ndoye waxu leen dëgg Ameth Ndoye mi leen wax ni am na permis da leen a waroon wax ni amul permis mais dafa trompé seen religion moo tax dëpp boobu ba léegi déggoo ñoom ñu waxaat mhm. moment boobu lan la lan la Cheikh Yérim Seck wax xeex baa ngi door a tàmbale mais xam nga question bi ñu war a posé Mouhamed mooy. mooy Ameth Ndoye. Ndoye fan la toll régime bi. ak ban menace lay peser ci kaw régime bi ba mu war a jaral régime bi ñu def ay pexe pour nërmeel Ameth Ndoye. surtout accusation yi grave yooyu ñu def maanaam dem ci base de données bi supprimer. oui xam nga loolu c'est extrêmement dangereux. Cheikh Yérim Seck dafa am ñoo xamante ni dañ ko gëm ba yaakaar ni ab demi yàlla la si kaw suuf jël ay booy yu tuuti ànd ak ñoom ci plateau toog di wax. ah non foofu nag ay kilifa ñoo fa newoon. Serigne Niang non ay anti Sonko nii mu nga fa toog. Abdou Nguer mi xam na ni lañu ñu créé c'est une association politique. waaw ah, loolu moom du dëgg. ñi bañ Sonko. Hmm. ñi maase bañ Sonko waxaluma leen de. ñoom ñoo ni Abdou Nguer a ngi nii su ma waxul dëgg na ni waxuma dëgg. Hmm. waaw Abdou Ngor moo ni. man nee naa la du bugguma Sonko damaa bañ Sonko. Ah, waaw ça ne va pas dire que. Mouhamed dañoo bañ Sonko fenuma de mu ngi nii jàkkaarloog man. <laughs> léegi nga ma bëgg a adressé loolu ci. nee na ah. bugguma Sonko damaa bañ Sonko. moom Nguer moom Nguer mii. wax na ko ma fekkee ko. Mhm. ma dégg ko fekkee ko. waaye léegi comment concevoir kooka. ñëw taxaw ni dafay taxawal mouvement société civile. te société civile ñëpp xam nañ ni vocation bu njëkk mooy impartialité. ñàkk far fenn. léegi kon kii échec na déjà avant muy arrivé avant muy tàmbali. mais peut-être bañ bañ mën na nekk mu bañ a feeñ ci ci liggéey bi ak. observation bu ñuy def non déedéet ku toog assumer publiquement ne bëgguma diw. gisuma lu rafetam bëgguma lu rafetam bu defee lu rafet sax nga wëlbati ko ba mu fexee nekk lu bon. Hmm. waaye sa waaye nag nañu wax dëgg même loolu mu am nag position boobu mu am. moom la Cheikh Yérim Seck am ci autorité yi fi nekk. Hmm. moom la Ahmed position gis nga ko moom la am envers ces nouvelles moom la Abou Diallo am envers ces nouvelles autorités kii sax appuyé na la thèse bi nga xamante ni moom la Yérim Seck wax keroog appuyé na ko ñëpp dégg ko. mel ni borom dëkk bi. Sénégal yëpp di la dégg moom waxu ko Yérim moo ko wax. kon non xam nga xam nga duñ dellu si moo ko wax waxu ko parce que xam ñëpp xam nañ. ñi moo ko wax dama doon dama doon préciser waat. ka ni moom retiré na ay propos am léegi Yérim moo ko wax. waaw mais dafa daw dafa daw responsabilité am. Mm, mais mais loolu la nag. man dama retiré samay propos. waaw mais mais mais. garaawul baal kii continué non baal ñu daaneel. parce que ah. sujet bu am importance la. Hmm. sujet bi amul benn importance. xam nga xam nga yaa ci bëgg fanaan parce que amoo argument loo défendre moo tax Sonko démb ne leen. <laughs> bàyyi leen seen détails ngeen défendre sama programme trompé yaa ngi ci yàgg Ahmed moom génn na ba ñibbi këram te lii ngay wax Ahmed taxaw na ci kanam juge bi ne ko dañu permis juge bi dog waaw waaw moom défendre naa fa mu waxoon wax ak démb c'est là où le débat est intéressant interpellé naa la waxoo ci kay bàyyi ah, wax démb moom changé wu ci dara non non non non booy bi moo leen di déranger non booy bi da leen a gën a crédible Mohamed booy bi da leen a gën a jub fu moo leen di déranger ah, ah waaw may ko mu daane xoolal boy bi génn na ba demee. waaw may ko mu daane dama ni. allez-y ah, bi nga ne xarit la mbokk la du xarit du mbokk parce que bu doon xarit di mbokk dina la wax dëgg. du la wax ni am na permis te amul permis. xamoo lu hmm. ma wax. ba mu taxawee ci juge bi yaa ko wax léegi du dafa réitérer ay propos lan la ko juge bi wax waxal li ko juge bi wax waxal li ko juge bi wax mais juge condamné na fi nit ba taay. numéro permis ba ñu dem ñu dindi condamnation nee na permis bi ka nga xamante ni moo ko moom te mu nekkoon confrère am. nga xamante ni cinq ans presque bokk nañ service di liggéey. Hmm. nee na musul xam ni waajooju am na permis fan lañ jëlee numéro permis waajooju ba def ko ci attestation bi xam nga dama ne nañu sérieux te waxante dëgg xam nga waxante dëgg weesuwut. mooy ñu taxaw fii naan dossier bi c'est un politique kii bu doon dossier politique. benn du génn heure bi 15 jours yi. Hmm. gis nga sax dafa jaaxal ñëpp bu doon dossier politique la xam nga ni quinze jours kenn du ko daan ay 15 jours dañu waxante dëgg. Ahmed Ndoye du menace contre le régime jegewu ko sax. donc mën jàpp ne erreur personnelle la bu mu def. dafa def dafa def yoon def na li mu waroon def ba ko ba. du erreur xam nga mooy lan. Hmm. nga def loo tayut ça c'est du je m'en foutisme. Hmm. di dawal san permis de conduire kooku si boo si boo ci rayee nit lor nga ko. boo ci reyee nit lon nga ko dawal sans permis de conduire ban loi moo ko nangu. ban loi moo ko nangu. donc da nga jàpp ne 15 jours yi dafa ndaw. waa mais dama ne. dama leen bëgg revenir si ñoom ñi doon wax ni politique ko lal. ok bu doon politique la. am naa da dana dégg leneen lu dul 15 jours Sidi jot mii. Hmm. ñaata lañ ko daanoon te Sidi jot ay défiance la amoon si wàllum papier. te moonte taxaw na si kanamu juge bi am humilité am grandeur. excusé wu kii nag dafa dem ci kanam juge bi di bëgg def forcing juge bi ne ko et eh, noppil juge bi daf ko dog parce que xam na ne li muy wax du dëgg. Hmm. kon nag réew mi bu ñu ko bëggee defar da ngay wax dëgg mënoo toog yor say kàddu yu ñaaw lu ne nga taxé ko ces nouvelles autorités là te fagaruwoo maanaam booy diglee cet da ngay sangu. surtout ku nekk ci société civile bu ñu duppee ces deux cent non du société civile. war na joxe xam nga Yérim mais nañ leen prêter loolu comme te ñoom loolu lañ déclaré. waaw mais mais ñun tamit am nañ droit wu tamit def constat. par rapport lañ ne moom lañ teg tegal. du société civile. Yérim moo am xeexu boppam bu ñu xamul ne ñoom ñii xamuñu ne Yérim xeexu boppam la yor xeex bi yëkkati woon na ko demul mu échec mu gis ni booy yi am nañ présence médiatique mu bëgg leen indi ci mbir mi def leen ay bouclier hmm. benn sénégalais bu sérieux buy àtte dëgg. te bañ a par parparloo doo dem ci association politique boobu doo ca dem de. Hmm. te xoolal ni mu juddoo noonu lay deewee ni mu juddoo noonu lay faatee boobu nga ko dajee gëj a dégg de. mais laaj naa ngeer keroog fii mu ne ma ñu ngi def ay réunion. waaw bañ génn waaw mais ay réunion chambre. xam nga xam nga luy problème bi moom parti bi dàq fen lay défendre. est-ce que yaa ngi dégg nit ñi créé seen mouvement. moom mu ne non ñooñu waruñu faa boo ko ko quoi. yow buñ la waxee ban parti moo dàq fenn ci Sénégal. même boo ko na fu muy na mais yow société civile alors que dafa jàpp ne. mais ñoom du ñoom ndax déclaré nañ ay patriote lan mooy patriote di wër di fenal nit ñi. loolu mooy patriotisme jeex na ñoom ñoom jàpp nañ seen fen yooyu bëgg nañ ci réew bi mais ñun tamit nañ ñu bàyyi suñu mouvement bi ñu def ko société civile. waaye maandu amatul le d'accord Serigne daaneel ah, foofu ñu. mais mais